waaw gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Production le leader dans son domaine. ah a may. gën noo gàtt noo tawfeex sëriñ bi. sa doom ji muy Cheikh Bassirou Mbacké moom Serigne Khadim Awa Ba gaynde baara maa ko tuddee waaye ba ma nee gaynde baara ñëpp xam nañ ne yaay gaynde Serigne Baara. ki wane moomam sëriñ baara nee na li ma gën a mooy wane woo sa bopp bu la neexoon nga wane sa bopp wane woo sa baay bu la neexoon nga wane sa baay waaye sa nga wane sëriñ baara ibnu xaadim rasul sëriñ Bachirou sëriñ Cheikh maa ngi lay seere ci moom nit ku yàlla baaxal la nit ku bëgg lu baax la waaye nit ku ma jàpp nit ku ma jàppale mu ànd ak forte délégation bi muy ñëw moom ngi ànd ak sa doomi bopp sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Mamor moom sëriñ Fadilu di nit ku yàlla baaxal bi muy ñëw moo ngi ànd ak sëriñ Mamor Mbacke Dendey baaw baab lañ koy wax ki sëriñ Mamor Mbacke Dendey baaw baab waaye bi ñëw moo ngi ànd ak pare de la grande journée delloo njukkal ak sargal sëriñ Fallilu muy sëriñ Fallu Galasloo Gaydel Buur Daali Gaynde Kokki fajkatu ajo kii moom laa tuddee bis bii ren loola nag maa ngi ciy ñëw ci kanam tuuti rek sëñ Cheikh kaddu yi du bari tey ñetti kàddu lay doon nga ñaan ma yeewi kilifa yi ñu dongo yi ñu des bi maa ci dolli benn ok sëriñ Cheikh dama doon leeral sànq ne premier ministre Amadou Ba dafay yebal délégation bu bari tam solo gaa ñi toog leen Badara jërëjëf toog leen toog leen toog leen la waral loolu mooy jëmm jii toog sëriñ Fallou lu Lo gaydel buur daal yi gaynde kokki maa ñëw ci bureau mu ne ma duggal ci sama oto nga toog ma dugg otoom topp ko mu yóbbu ma Petit Palais Petit pale nag am nañu ko xam Petit pale premier ministre moo fay ne moo fay dëkk mu yóbbu ma ci premier ministre Amadou baax mu recevoir ma ñu waxtaan lu bari ci réew mi mu sagal ma lool nag sigil ma ndax nee na ma kii ku mu indi ma téye ko Serigne Fallou Gallas Lo Gaydel Bour Dali nee na ku mu indi ci man ma téye ko Amadou Ba premier ministre ki nga xam ne moom lañu dénk parti APR ak Benno Bokk Yaakaar muy jàmbaar le candidat officiel Serigne Fallou Galas Lo Bourdali bi ma yónnee ci teraanga yi nga xam ne bàyyi koo ci ñoom rëy na ci man lool waaye Cheikh Basirou dafa jëmm ju fi teew teewal fi nit ku yàlla baaxal muy sëriñ Aliou Sànqe dafa teewal sama baay di sama xarit ñu koy wax alhaaji Mbaxtaar Caan ambassadeur itinérant Cheikh Mouhamadou faadal Mbakke alhaaji Mbaxtaar Caan damay def appel bi mu woo ma mu ne ma génneel sama tur ma ne ko bàyyi lu tax mu ne ma yow sama xarit nga sama doom nga xoolal ñeneen ñëw tuddee bis bi lépp maa koy def barke sëriñ fan Falil Aliou Sànq mii keroog bi muy dem Dubaay la ma woo ne ma Matar nee na enveloppe kaki baa ngi maa ngi la koy séeréel sëñ Bas loolu maa ngi yow après la jërëjëf Mbàkke lépp dana leer waaye hors antenne lay doon maag yow ma leeral ne la sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke mii nga àndal moom sëriñ Cheikhouna moom Cheikh Abdoulaat nit ku baax la chaque jour dafa may woon na mu fa ci bis bi ndax xam na sama diggante yow sëriñ Bas xam na ni ma demee ak yow ak yow ni nga demee ak sëñ Abdou Xuddoos ak sëñ Mamor bis bu yàlla sàkk damay woon ne ma foo toll ci bis bi mu ànd ak sama goro sëriñ alaaji ka mu sëriñ saaliw di magu ndey kamee jërëjëf sëñ ji léegi damay wàcc sama kàddu cheikh yow laay jox cheikh wax yi dañ koy tënk tënk rek mu gàtt nga def présentation bi ñu jàll ci keneen jàll ci keneen bismillah lamin dafa am doomam joo xam ne day sama xarit muy mu Moulay Dabaax nekk ca Dubaay yónni ma ay teraanga yu baree bari léegi dama bëggoon rek man sëñ Bas nga may ma ko ndax wax naa ko sëñ Cheikh ñaar ñi nga xam ne dañuy yëkkati seeni kàddu muy premier ministre ak alxaaji Mbàkke yu fay suñu noppee ma jël kàddu gi jox la ko suñu noppee ma jël kàddu gi jox ko sëriñ Sidi mii mu sëriñ Modou Maxtaar suñu noppee imam Bousso sëñ Cheikh jeex na tàkkoon alhamdulilah ndeysaan nee na moom dafa baax mën a joxe cër te cër ku ko amul doo ko joxe léegi alaji sàmba Diaw kàdduy alaji Mbàkke yu fay maa ngi ciy ñëw sëñ Bas dafa am kook moom it dafay yeble bis bii yeblewu fi bisam la muy sama yaayu bopp déglu leen baax li may wax bis bii dafa am koo xam ne damay wax ne dafay yeble lañ may wax sànq ba tey yeblewut dafay teew muy bis boppam muy sama yaayu bopp di soxna Baali Muntaqa soxna Baali Cheikh Soyibu borom fondation bu rëy bi fondation Soxna Baali Muntaxa kenn du yow loolu tamit way woow maa ko génne kenn du yow Soxna bu rëy bi Sëriñ Basiiru Soxna Baali dama lay seereel ne maa ngi koy sant waaye maa ngi koy gërëm di ko seereel Alaaji Sëriñ Cheikh ndax Soxna Baali daf ma sagal waaye daf ma siggil waaye damaa teral daf ma defal teraanga lool soxna Bali Muntaka saa su ne soxna Bali day jëflanteeg man ay teraanga te loola nag day jaar ci loxol sunu jëwriñ muy Serigne Modou Mamoun loo gaydel buur daali Serigne Modou Mamoun loo borom ndaam. yow danga noo sagal danga noo siggal ci soxna Bally Mountakha ma seereel na leen ne maa ngi sant bu baax soxna Bally Mountakha sëriñ Basiiru teraanga june defal na ma ko maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm alaaj sàmba Jaw yow laay jox kàddu gi rek may leen ma ma jox alaaj Samba kàddu gi nee damaa jox kaamilu alxuraan di sëriñ Fallilu nee dara gënta rëy ci man alxuraanul karim ne kon sëñ sëñ sëñ bi daal jërëjëf sëñ am sa moom sëñ Subayru moom ci maam Thierno Ibrahim nuyoo rek nuyoo nan njabootu sëñ Touba gépp waaye ma génnee ci sa doom ji di sëñ Bas mu yóbbaale njaboot yëpp ak taalibi yépp sëñ Bas Xaadimaw Ba yéen ñaar bu ngeen toogee rek jataay bi mbat na sëkk ñëw nañu fii nga xam ne taalibe bu sëñ Touba bu sëñ Fallou lañ fi fekk si muy alaaji Seydou mii jàkkaarloog ñun di kenn ci diwaanu Mouridina Masalikul Jinaan waaye di kenn ci alaaji Mbàkke yu fay di kenn ci njaboot gi nga xam ne alaaji Mbàkke fay jiite na leen ñuy taalibe yëpp Masaalikal Jinaan mu fay def lim man ak lim mënul lépp ku xew xewle ci nekk Seydou mi taxawu na la mu Mbàkke yu ma koy sant bu baax di ko gërëm bu baax sëñ Cheikh ci sa kanam ndax lu ngeen yëkkati rek mu jëm ci Masaalikal Jinaan boo ñëwee fekk nga ko fa ña ngi ànd ak Cheikh Balla sàmb mi nga xam ne mooy directeur Touba TV ànd ak Abdou Khadr mi nga xam ne boo waxee Masalikal ji da danga ko tudd ak Yanma Faye mi nga xam ne moom mbakk yi ñoo bokk ndeeg baay ak soxna jigéen yi ñu fi fekk nag mooy jigéen ñi ji naan boo tuddee gàmmu Jóob tudd nga jigéen ñëpp ndax ci délégation bi dañ bokk kon alaaji mbàkk yu mag lay sant bu baax di la gërëm bu baax tey bis bi dafa surchargé lool Seydou bis bi dafa surchargé du ma ci sori lii maam jaara koy toggul mu lekk moo koy jox muy naan ndax bëgg maam jaara lool maam jaara ba tey lii lépp ñoo fekk si kon maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm Mamoun ah sama yaay gis nga moo ma jox kurus gi ci maam jaara jërëjëf saar yal na yàlla guddal sa fan yàlla boo wuute sunu dara sama mag Malick si ñoo bokk ndey ak baay agi Malick anamu Malick sëñ Bas nee na nga jege si mooy sama taawu yaay ci man ki ma bokkal ndey ak baay mooy sama taaw alaaji Malick si la ko sama baay tuddee man sama baay tuddee ma alaaji Seydou Nourou taal moo tax ma fokk taaleen yii alaaji Seydou Nourou taal la ma tuddee moo tax sama baay ba ma jébbuloo ñoo ngi nii dafa jaaxle mu ne ma Seydou lii mu def lu doon man xaw ma lii ma ne ko di nga ko xam nan ànd rek ba ci kanam sëñ Tuubaa bu nandee ba ci kanam di nga xam ne sëñ tubaa rek a fi nekk waaye wilaay sama bàyyi xam ne sëñ Tuubaa rek a fi nekk yàlla yàlla dolli ci moom njëggal ak yërmande ak ay leer ci barkeb sëñ Tuubaa te bàyyi bi sama bàyyi sama yaay ju baax ji yàlla na fi yàgg waa jërëjëf alaaji Seydou mu ànd ko taalibe yi mu yegg man teraanga duma ko xumtoo alaaji Mbakke yu fay lim ma jox un million la ne dañ ko war a dégg dañ ko war a xam ndax ne sama baay la sama xarit la ne loolu na woor ñëpp nag ne wan na ko àdduna yëpp sama baay la sama xarit la ne kon su ma jëfalee tiraanga ji ne su ma yaaya nga ne toog sama sëriñ a ngi nii toog muy sëñ Cheikh Oumy ne samay doomi sëriñ ñoo toog ne sama rakku sëriñ a ngi nii nee naa séeréel mbooloo mi jëf ji nee duma ko xumtoo nee maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di ko bàyyeeg sëñ Touba ma mu joxoon milliard bi moo njëkk joxe murit bi njëkk joxe milliard kooku murit ci yoonu murit ne alaaji Mbàkke fay ne moom lañ koy wax murit saadax bi mani ni ku ko bëgg gën ku ko bañ ku ko bëgg gën ku ko bañ ne boye boo nit ñi bëgg ko ne ñu noppalu sëñ ne mi ngi sant Omar Gan ci turu sëñ Saliou mii mu yónni sëñ Omar Ngom maa ko xam ne day sama sëriñ ne di sama xarit ma koy fekk dëkkam bi ci Bambey ne mu may sangat di ma ñaanal di ma jox xaalis muy sama xarit ne maa ngi sant sëñ Omar Gom ne di ko gërëm di ñaan yàlla guddal fanam jërëjëf sëñ Saliou kon dégg na ko sëñ Omar Gom sant na ko gërëm na ko ñun lan ñoo ko fekk si Seydou fonk Seydou waaye mu fonk lew sëñ Fallou mu ni ma ma lim délégation bi bi mu ñëw ànd na sëñ Ablaye Koundoul conseil technique moo ñëw nii ànd ak Alassane Dia ànd ak Ousmane Sy ànd ak Saliou Dieng ak ñin fi fekk ñëpp di ay Amadou Ba kon te kaw te kanam ñu teewlu nag kon président Abdoulaye ñu déglu ko ñu déglu ko moom moo ni ma jottali ko di leen def ndànk waaw maa ngi nuyu mbooloo mi fi nekk nee di siyaare kilifa yi fi nekk nee di yëkkati nuyoo bi ak siyaar bi di ko teg ci loxol Serigne Cheikh Oumy Mbakkeem Serigne Fallilou mii toog nee di leen nuyu nag turu premier ministre Amadou Ba nee programme bi dafa chargé waaye tànk yii li ko waral. laa andi mooy tànki kóllëre mottali kóllëre ne ak ñëw sant ñëw sant le la Cheikh Mouhamadul Fadal ne yow sëñ Seydou premier ministre nee na waxante ca biroom ne kenn fekkewu ko ne xam na ne dara du dañ ne kon taxawaay bu fi mante am tey luñ fi mën a andi tiraanga ne tolloowut ak asaka kon ne Seydou ne mi ngi lay yee gërëm ne dafa wax ni nag bu ma ñëwee kilifa yi ma fekk naa leen tàllal sama loxo ñu ñaanal ma nee ñu ñaanal réewum Sénégal nee réew mi am jàmm am dal li ñu dëgmal nii di ci jëm nee yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm nee li gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla def nee waaye ñu ngi tàllal ay loxo di ñaan kilifa yi fi nekk li nga xam ni am na ko yéene ci Sénégal ne yàlla may ko mu sotti ne wax ji du mën a gudd ne di am mbégte nag teew fii ci bisu sëñ Fallu bi ne man dama bokk géejawaay ne bi ma ñëwee nag ay kóllëre rek laa fi fekk ne di nuyu sëñ Malick si nga xam ni mooy magi sëñ Seydou si ne ñoom ay ay activités yu bari yu ñu daan def ne kon sëriñ bi wax ji mooy loolu ne ñu ngi dellu di nuyu sëriñ bi mu wàccee lu nuyoo boobu ci taalibe yépp ne kilifa yi fi nekk yépp soxna yi fi nekk yépp ñëpp ñu ngi leen di siyaare di leen jottali nuyoo amadu Ba premier ministre wax nañu délégation bi Ousmane Sy mi ngi fi professeur Saliou Dione mi ngi fi ne sëñ Dia mi ngi fi ne ñooñu ñooy délégation bi ñu lim léegi ne di leen gës gërëm di leen sant jërëjëf sëñ Ablaye Koundoul Bass yaag sa baay bi alaaji Cheikh Oumy Mbacké Falil ku xool mbooloo mi ni ñu toogee ak ni ñu dale yàkkamti wuñu dara ñoom rek ñoo baax ñoom rek ñoo yiw waaye ñoom rek ñoo bëgg lu baax maa ngi leen di sant waaye maa ngi leen di gërëm seen Cheikh borom bis bi daf cee teew mën naa koo wax waaye daf cee yeble lam ma waxoon ne ma Sëñ Fallu rekk laa bëgg sëñ Fallou rekk lay liggéeyal muy sëriñ Abul Baraka xalifa sëriñ Fallou sëñ Abo bi ma koy yëgal bis bi maag sëriñ Basiru mii gaynde baara ñoo toog sëñ Abo ne ma sëñ Fallou rekk laa bëgg sëñ Fallou rekk lay liggéeyal mbooleem lu ma fa yónnee woon dama koy ful dama koy yokk sëñ Abo yónni na tey ñaari doomam ñu ànd ak mbokki taalibi yépp def forte délégation ki ko jiite mooy sëriñ Cheikhouna Mbacke mu sëriñ Abo mu sëriñ Fallou ki mu ci àndal mooy ki mu duppee alaaji Basiiru Mbacke mu sëriñ Fallou muy sëriñ Basiiru Mbacke mu sëriñ Abo mu sëriñ Fallou ki ci topp mooy sëriñ Sëwru mii Sëwru Sëy mooy loxol sëñ aboomu sëñ fallu ku xam sawru xam ne mooy loxol sëñ aboomu sëñ fallu ak taalibe yépp kii mooy njëkk sëñ aboomu moo ciy mujj moom la wóolu waaye moom la doyloo sawru mii barke sëriñ Touba su defee lii moom sëñ aboo boole teraanga yu rëy seereel ne maa ngi koy sant waaye maa ngi koy gërëm te koy ñaanal yàlla guddal fanam sëñ abul baraka yàlla na fi yàgg te wér ba naal yi mu naal di ko liggéeyal bàyyam sëñ fallu mu yeggale lépp ci barkeb sëñ tubaa sëñ Cheikh maa ngi lay seereel ne maa ngi sant bu baax ajarut soxna faat bintu puy mbàkke mi ñu dénk sëñ abdou karim mu sëñ fallu yaay puy day ndey dongo yi di taxaw dongo yi di dimbali dongo yi soxna Faat Bintu Puy Mbàkke mi ñu dénk sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallu mooy taxaw kër gi taxaw dongo yi maag Lamin Sekk bi ñu demee këram ma koy yëgal bis bi dafa ma dugal néegu biiram mu bindal ma chèque Lamin a ngi nii maa ngi nii man lépp lu may wax caméra la bi ma bindalee chèque bi ba noppi mu ne ma danga koy jëli ci banque BDK waaye lii liquidité la def ci essence nga yeewi ci lamin li yeewi ci sa bopp mu ñëwaat ndakaaru fii woowaan ma Radisson maag lamin ba tey mu boole maag kilifa lamin seere la mu yëkkati ay koppar yu bari defal ma ko ci sama bis bi ne ma duma bàyyi fu ma toll naa lay woo di xool foo toll ma lay booleeg ay nit kon maa ngi koy sant di ko gërëm yal na la yàlla bàyyeeg sëñ Abdou Karim mu sëñ Fallu te sa borom guddal sa fan ba lépp loo fa am mu barkeel ci barkeb sëñ Fallou sëriñ Bachirou ma seere laat la maa ngi sant bu baax jigéen ju baax te yiw te bëgg lu baax te am ngërëmal baayam muy soxna maam Faati Mbàkke Xafoor mi ñu dénk sëñ Abdou Xafoor moom sëriñ Moustapha am Seex ma sàmba soxna maam Faati mi nga xam ne mooy doomi sëriñ Siidi mu Seex Abdou di jigéen ju baax jigéen ju nangoo liggéey waaye jigéen ju am jom sant naa ko gërëm naa ko sëñ bi ma seereel na sëñ Abdou Karim Mbakke doomi sëriñ Basiiru mu sëñ Moodu bu sa jeng mi ñu dénk liggéey bu rëy bi ci tuubaa mu yor liggéey bi muy iwil Binta teraanga yu bari la ma jox Cheikh saa Cheikh a ngi nii Cheikh Mbacke Dia bi ma ñëwee këram ci saalam dafa yëkkati téeméeri junni jox ma ko Cheikh a ngi maa ngi mënoon na ne Mbacke laa sant duma la jox sama xaalis ma yaakaar fa lay yem mu ne ma déedéet diwlin la yebal ci ay oto ñu jóge tuubaa ñëw fii mu ne ma bis bi lu ñu fay togg diwlin bi maa la koy jox maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ma seereel la ne tamit la PDG Sidi Mbaj dafa def jëf juri rëy cheikh mii la ko jox cheikh Mbacke ja moom moo yor huile soda diwli ni bari na waaye dafa bari ay wuute nag Sidi Mbaj moo yor huile soda diwlin soda moom it ay bidon yu bari la ma jox ni bis bi maa ko war a diwli ba tey dafa am koo xam ne sëñ Bas sa xarit la lool di xaritu yéen ñii ñëpp toog muy sëriñ Fallou Mbacke transitaire mu sëñ Dan ma Daam sëñ Bas sëñ Fallou nit ku baax la sëñ Cheikh sëñ Fallou Mbacke transitaire nit ku baax la dafa maa ñëw këram mu woolu ma ma ñëw mu bind ñaari chèque BDK muy cinq cent mille jox ma ko bindaat beneen chaque cinq cent mille jox ma ko ne ma suñu ab du Khoudous mii moo ko moom xanaa mu seede baaxul day leer suñu Abdou Khoudous mii doon ngénte barki démb ndaw talu ma ko joxul ma ko téeméeri junni yi yow miy waajal xew wi jëlal téeméeri junni yi ñaari mbubb yi na ko sol ci xew wi maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm Serigne Bassirou le PDG Souley Diagne yaa ngi noté bàyyi li ngay note dama lay wax rek sëñ Bas bàyyi li ngay noté <laughs> sëñ Bas da ma xam ne da ngay toog ba 2 heures 3 heures du matin nga may woo dimbali ma rek bul noté ok le PDG Souley Diagne maa ngi koy sant bu baax a baax sama xarita lool le PDG Souley Diagne daaw moom laa tuddee bis bi mu jox ma million yu baree bari ne ma def ko ci bis bi may santaat bu baax sëriñ xaadim géey mu alaaji baara jëwriñu alaaji baara moo ngi turk waaye at mu ne day jënd ay nag di ma ko jox mu ne ma ren du ma jënd ay nag enveloppe laa lay jox maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm di sant bu baax sëñ Bas ki ma mujjee tuddee sama doom jii muy sëriñ Maxtaar jenn kurus sociale sëriñ Matar jenn bi ma tëggee bis bi rek woote ko dafa ma woo ne ma li may jëf bis boo ko waxee dootuma la jëfal ma ne ko nag bu dee bëggoo may wax bul ma jëfal mu ne ma yow maag yow du lu ñuy waxati ndax li ñuy wax gis nañu ko ma yaakaar fale yem mu woowaat ma maag si dinaar jenn mii ñu ànd mu ne ma si dinaar jenn tey laay jox mbu mbubb waaye yow duma la jox coy mbubb mu jox ma ay million maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm sëñ maxtaar jenn cour social ndax sama doom ju mujj ji moom laa ko tuddee ndax kóllëre gu yàgg sëñ maxtaar bi muy dëkk fii ci fajaa yor bool benn bool bu ndaw man seextaal ma nelaw ndem sa yàlla ma ibra cuun maa ñoo daan nekk benn mbubb lu yoroon muy njaxasu bay Faal moom dañu ko daan abal bu ñu amee programme ñu koy sol ci programme yi sëñ Matar Jenn barke Serigne Touba Mbacke xam nga loolu yàgg na sëñ mbataar moo ñuy abal mbubb mi njaxas la ñuy sol njaxas bi di dem ci programme yi suñ ñëwee joxaat ko ko mu demaat lavage mu tegal ñu ko fa looloo waral bi ma ko fekkee Abidjan mu fay liggéeyal yàlla ci turu yàlla ba yàlla wuy si ko sëñ Murtalaam sëñ Tubaa ñëw fa ne ko sëñ maxtar mu ne Mbàkke mu ne ma mu ne ko doy nga ma dama bëgg ngay jiite ajame ci kër sëñ Tubaa ki ndax sa liggéey sëñ Tubaa doy na ma sëñ Murtalaam sëñ Tubaa ko wax ndax sellam ak yiwam ak mbaaxam nee naa ko kenn mënutu laa gàkkal ndax dangaa set sëñ Maxtaar jenn kenn mënatu koo gàkkal ndax dafa set te réew mi am na fi entreprise moo tax ma tuddee ko sama doom jee sëñ bi ma seereel ne la maa ngi sant bu baax Umar Baawo junior yónnee na ma teraanga yu baree bari di sant bu baax alaaji Abdoulaye Dia Siniko yónnee na ma teraanga yu baree bari ma seereel ne la maa ngi sant bu baax soxna Xadi Kebe mu alaaji Njugo Kebe soxna Xadi yónnee na ma teraanga yu baree bari ndax man sama xarit la bis bii su ma ko mosaan woote soxna Xadi moo may xottil grand mbubb bi may sol boroom këram bu baax bi alaaji Maxtaar Caan yëkkati ay millions jox ma ne ma def ko ci bis bi ndax derrière un grand homme y'a une grande dame kon maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm may sant bu baax Serigne Bassirou son excellence le président Macky Sall maa ko wax de damaa toog ba mu yàgg waa pale na ma carte téléphone ne sa pale de la république ma dem baa leen jàmm la rek ñu ne ma jàmm la ñu ne ma président daa am lu mu la jox fii ngir màggal gi ngay waajal ma ne leen lu may def ñu ne nga ñëw wuy si palais ma dem pale ñu jox ma enveloppe kaki non dana leer maa ngi yow la sëñ Bass ndànk rek lépp dana leer maa ngi koy sant président Macky sant waaye maa ngi koy gërëm bu ko defee damay jox sëriñ Seydina Omar buso mu ñëw ci ay kàddoom bu ñu paree ñu jëm ci sëñ Sidi waaye sëñ Bas dafa am koo xam ne ñaar ñee dañuy ambassadeur lislaam sëñ Cissé mu sëñ Babacar mais dëkk Tiwaawoon yaakaar sëriñ Babacar si muy fajkatu aajo ca ma mel bàyyi yitteem yëpp ngir sopp gi ma sopp ak sopp gi ma ko sopp maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm ak jëmm ji nga xam ne sëñ Bass mooy Cheikh Samba Khaya Cheikhu Sëriñ Baara teraanga yu baree bari la ma jox ndax bis bii dafa ma ne Seydou maa ngi ma ne ko Mbàkke mu ne maa fi jën njëkk a jën nag mu jox ma koppar yi maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm waaye sëñ Bass gis nga kee toog ci suuf billaahi nit ku yiw a ngi nii mu Moustapha Cissé Khelcom automobile ku yaroo ngi nii ku nangoo jaamu yàlla am jom lool waaye bëgg lu baax keroog camion bi mu gaaree fii dañ koy seetaan ci teraanga yu mat sëkk sant naa ko gërëm naa ko sëñ bi ma seereel na mu ñëw Lamine jox la sëriñ Maxtaar Sylla wax naa ko seexu lasraar ak sëñ Jili ñang kennal dañ maa defal teraanga kii moom awma sago ci moom sëriñ Baara Mamor ndax baayam kii baayam sama sëriñ la woon sama xarit la woon ajjuma fii laa daan jóge départ dem tuubaa romb jumaay tuubaa ñëw ba ci jumaay ndaamaatu ñëw jullee fa mu ne ma Seydou lii yàlla rek la ma ne ko du yàlla kat xam nga ne ku romb jumaa Touba ñëw ndaamaatu gii xam nga ne du yàlla yittee ma indi de mu ree ba kekk ne ma nañ añ ba noppi suñu añee ba noppi mu recevoir ma par kenn kenn lay restoire du bëgg kenn ku ne mu lay jox keneen ki xam ko muy recevoir par kenn kenn naar yeeg ñun ñii mu yëkkati enveloppe jox ma ni ma xanaa mën ngaa ñibbi ma ne ko mën naa ñibbi bi ma koy mujj fekk ndakaaru su busaan ñëw ndakaaru man lay woo ne ma ñëw naa ndakaaru ma ñëw ne ko man de sëñ bi teg maa dimbali aw ma aw ma pàkk ci ndakaaru gii doo ma dimbali rek ma am terrain walla pàkk mu ne ma yàlla baax na sëñ fa lomul morom ay fan lañ ci teg ñi may ma pàkk nee ko maa ngi koy sant maa ngi lay gërëm ndax sa bàyyi kon sëñ dina Lamine waaw bismillah euh, jërëjëf Seydou mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di ñaanal Cheikh Modou Mountakha yàlla fi yàgg lool ci wér alaaji Seydou dafa am ñoo tudd léegi di ko seereel Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa ba muy toog Gaynde Baara borom journée culturelle bu mag bi ci Ndakaaru moom Serigne Khadim moom Cheikh Mat Lamine Baara ca damay faral di wax ni lu réer cib néeg ka fa mujj rek lañ koy laaj ca sa baay rek ka mujj Cheikh Mat Lamine Baara Moustapha amin tuloog Baara amin tuloog xarit maam amin te yàlla yàlla ko jikku mbag gee dara xuj kumba faala xuj kumba adda sekk xuj kumba borom sul ne culturel bi ci Dakar bii trois heures du matin laa ñëw fii ci Seydou fëgg Seydou mii ni ko Seydou muy waaw muy muy muy muy bëngeem bëngeem ma ne ko jugal sëñ bi nee ma laal kot waaye yow lu baax li ngay def mënees na koo wax bale bale si bëri sëñ Bakke Maram mu jóor fii ci buntu baas bi taraanga yoo xam te ne kenn xaw nu toll nga baax loolu Mbàkke dëkk ñun taraanga di ñu defal ay taraanga lu nu xewle kenn mënu la ci bàlle subli suñu Mbàkke maaram sa xarit ba lee toog di sëriñ Cissé moom sëriñ Babacar Sy di ko xëy ni moo ma woo ni ma sëriñ Basiru Xaadim aw ba man maa ko bëggal sama bopp maa ko jàppal sama bopp ndax ma ne ko sëñ Cissé lu tax mënuma fulla ak fayda ak am jom ak bëgg maamam ci sëriñ Basiru ci loolu rek lay dox sëriñ Cissé mi ngi ne lee toog di sa wëllëre di kenn ci yow moo moo yable ci Seydou mii yëkkati enveloppe bi jox ko keneen di sa alali bopp di koo xamante ni guddi guddi kër Cheikh Mat Lamine Baara rek lay yeewoo muy Cheikh Samba Xaye mi baax mii la toog bërki démb dañuy dem dañoo dem Mbàkke Kajoor jataay bi ñu toog sëriñ Cissé mais waat joxaat ma enveloppe ni ma yutal ma ki nga xamante ni mooy Cheikh Samba Xeye sama enveloppe ndax man lu Cheikh Samba woote rek dinaa ci feeñ. ñuy waxtaane maa ngi moom sa jëmm gi ak sa mbaax Cheikh Samba Xeye ku la bëgg la sëriñ bi muy sab taalibe mu ni ma man awma kudut Cheikh Mat Lamine Baara yaakaaruma kudut Cheikh Mat Baara Cheikh Samba ñëw na waaye alaaji Seydou Cheikh Samba Khaya moo la jox enveloppe bii tudd nga léegi koo xamante ni tamit muy soxna maam Faati Sidi man la fi yebal man la jox enveloppe bi indi naa la ko jox naa la ko defe naa Cheikh Samba Khaya mu Sidi Mokhtar na ñëw soxna Faati Sidi man la fi yebal ci bëccëg mook sëriñ Abdul Khafour moom sëriñ Moustapha Aminta Amar sëriñub sëriñ Modou Mamoun Lo Gaydel borom daam mu jox ma enveloppe bu mag ni ma boo demee nang ma ko joxal Seydou ndax sëñ Abdou Khafour daf laa bëgg yow soxna Faati daf laa bëgg moo la jox boobu boobule keneen waaye waaw dama yor ay enveloppe rek beneen bii ma yor beneen jàmbaaru sëriñ Touba moo la ko jox muy sëriñ Khadim Gueye gaynde kokki di nit ku baax di ku la fonk la wóllëre sëriñ Fallou Galas loo buur daali mi gaynde ko di kenn ci yow di sëriñ Mohamed Samb soldaaru baram Touba moom it sëñ Mourou Mamoun xam na ko sëñ Maam Cheikh xam na ko moom sëriñ siisam sëriñ Babacar si basam mi ngi nii kon sëriñ bi ñu ngi lay seeral sant nañu sunu xool seddu nag guyu Seydou nag li ko waroon lépp def na ko bi Serigne Bassirou ñëwee fii yow yi na nag yi jox ko jël na xaalis bi mu yoroon lépp siyaare ko ca moom sëriñ Bassirou la am ca moom mi nag buy siyaare ji sëñ Bass man mii rek la àndal sëñ Bass defal na loo xamante ne nag danoo jomb gis nga nit day sant sëñ Bassirou bu demee ba mën a yëkkati mbubam jox ma ko jox ko Modou Mamour Lo Gaydel mi ak grâce moom mi toog ca loolu jomb nañu lool sëñ Bassirou Mbackeem sëñ Fallou sol naa mbubb mu ne waaye korog mbubb moom bi ñëwee xam naa ni dëgg dëgg nag sëñ Touba dimbali na noonu mu yëkkati teraanga jooju jox ni ko maag Mudu Maamul korog sunu bàjjen soxna Bali lan ñu ci tegal mooy lii da xanaa da ngeen koy barkeloo waaye lii jomb na leen yëkkatiwaat ay teraanga yu mag moom soxna Bali mu taxaa borom fondation bu mag boobu yëkkati teraanga yu mag tegaat ko ci jox ko kam yónni woon ni ñu boo ngeen joxaatal ma ko man addee sëñ Fallu kon soxna Bali ñun mënuñu koo fay lu lu ñu ne rek moo ci man kon yàlla yàlla defal jàmm ci barkeb sëñ Touba jërëjëf kon alaaji xaadim mbay kàddu gaa ngi noonu faaw ngeen may nag Seydou si mu jël enveloppe am yi ndax jàngi géwal kat ak communicateur enveloppe ca la bokk pusal tuuti ngi ziyaare doomi sëñ Fallou Mbacke ji toog ci biir baas bi nga yàgg fee fekk Seydou si lu sëydu ma sa am yaa ci jiitu te ñun sa baay rek la ñu bëgg sa baay rek la ñu gëm Fallou bi sa jaxre bi yàlla sa jàmb yàgg ñu ngi lay jox wàccuwaayu Serigne Fallou sa baay bu baax ba nga xam ne ku ne am nga Serigne waaye ku jàq sa baay rek la woo maa ko ni woon soxla su ne fàng nga xool gauche xool droite sëñ Fallou rek ca gaaw Mbàkke ñu ngi lay jox sa wàccuwaay yàlla sa jàmm yàgg. di nuyu doomam ju baax ji waa ma ko. di nuyu doomam ju baax ji toog sagub kër Serigne Baara Aminata Lo sagub kër Serigne Moustapha Aminata Lo waaye sagub ndaat gëma dëkk. ak kebe meer ga xaadim mbay mee dëkk di sëriñ Basiiru xaadim awa ba kër boo fa ñëwee fekk sa baay dëkk fa sa baay soqi koo fa sa maam soqi koo fa di doomi sëñ Bamba da war a fexe wane ko ba nu gis ko à travers di monde ku tuddati sëñ Baara rek xelam dem ci yow loolu liggéey la ki def bis yeew géwél yëpp benn géwél ameloo ko bor téeméeri géwél lu tegal ku la fekk dëkk bi naan foire Mor Lo mu soxna Baali Muntaxa ak ajaratu moominatu kebe asta bintaaram joor ay sa mboj ma jigéen jóob xariloo buri jenno géej bi paasu màkka yi ci réew mi mominatu mayee na ko oto yi ci réew mi mominatu mayee na ko téléphone yu seer yi ci réew mi mominatu mayee na ko amul baru saat interdit fenn sama sëriñ bu baax baa ma ko wonoon yaaram mbàkke ñu yónnee dan la koy seedeel waaye di ko seedeel sama sang bu tedd bii léegi da tudd baayam bu baax ba ay jooy jàpp ma sa baay ma fekkoon ma nekk zéro mu def ma un sëriñ Maam Mor soxna say jaxati su nit ñi dee wàññi ay millions di ko bàyyi ci koofar sa bàyyi di wàññi ay téere alxuraan di ko bàyyi ci koofar su nit ñi dee tabaxi kër di ko def sato di fanaan ci lalu or sa bàyyi jël alxuraan njeganoo ko bu nit ñi dee tabax ay pale sa bàyyi jël jàkka def ko muy am def ko muy léppam bu nit ñi dee bind kaamil mu bind ci lu dul jeex def ko addiyay baayam sañ fàllu dama ne bu nit ñi takkoo bayi tool boo ñëwee fekk sa bàyyi këram mu toog ca suuf gën leen a bëgg lool sëñ bamba doon seen taalibe boo ko nee mbàkkee ñëpp la bëgg mu ne naa doon taalibe bi sañ Bamba rek soxna say jaxate la maam tudd takko jow bur gel joojo koddu yaasin isa biige ndaw kombo jaxeer jaxeer faal yaasin buubu sama sëriñ baa ngoogu yaa ma woonoon moominatu wàllu galas loo gaydel la tuddee tee bis xoolal fii lenn rek a fi nekk da ngay njëkk a baa nga mujjee fayu bu la ay nit dee nooyee tuddee la bis lenn rek lan lay doyee la nga leen mënal te di ca yëngu nga jàppale leen ca ba ñëpp gis leen àndandoo ak yow ba réew mi xam la nga bàyyi nuñu féete ginnaaw te kat fii koo fi àndala ci bàyyi ko ci ginnaaw dalay sànni xeer de may nga nu ci mbubb yi may nga nu ci oto yi booy dem nanu kaay leen wecce kenn ku bees maag Seydou Sy mii keroog ba nga ko dugalee kër premier ministre bi ma ko gisee damaa kontaan bàyyi ña nga amoon wóorul da ngay téye ña nga am te kenn nga dendal ku ñëw ñee la gay dal xuj a kumbaak maam jaan xuj a kumbaak sooy xuj a kumba koo am téye nga ko mataar naaruloo mi ci kokki man mi maa ko waxoon maa ni Matar Naar Lo mi ci kokki jar na sàkku ñaan moo la seexal tudde la buur daali su réew mi yëngoo ami jafe-jafe yow lan naan demal kokki ne sëñ mataar mu ñaan aajo yu faju enveloppe bi ma yore ki ko moom mooy soxna Xadijatu Kebe mu Matar sa ambassadeur melax ki ma fekkoon ca yonent ba buy dem ne ma nañ ànd suñ duggee ca biir bikit ba mu wàññi xaalis génne muy million mu ne ma jëndal montre ma ne ko yaa ko tal njuga Kebe sa baay jox ma ma def sa poche man montre ñaar fukki junni laay takk soxna Kiné Sarr yaayam nag Alpha yoro Mbote Faye faatuma Lam Sarr ma yoro Daraman ñaari yooni Alaaji Maalik waaye ñaari yooni Sëñ Bàmba ba noppi di jàmbaar bëgg boroom këram nee moo la jox lii gannaaw ba nga gisanteeg sëñ Matar gis mu lay Abdou Aziz ma ca Dubaay sama waa jooju nga xam ne su may dem daf may daggal bee jëlal ma business class yóbbu ma dëkk bi naan màkk yàlla na jàmmam yàgg mbokku ndeyam sëñ Aliou Sànq sëñ Aliou Sànq mu baax moom mu bokkal maam nga xam ne moo ko wan ñëpp te yàqalu ko dara ku ko wax lu baax mu wax bii ci des nag ki ko joxe mooy mbokk ndeyam Fallou Lo Samuel Mohamed Sarr ku la yëkkatee ti ba nit ñi gis la bu ko rusa tudd ci benn baas Cheikh Mbacke Fone Samuel Mohamed Sarr borom West Africa énergique nee na gisoon na la sax waaye saa yoo ko tàntee rek mu yabalaat ma yàlla na yàgg ci barke sëñ Fall doomi Jasika Sow jooju nga xam ne sëñ Saliou rek lay wàlle wootewul mitin demul fenn furul sëñ Bamba bi ci des nag ki ko joxe moo dëkk Touba Mbeel ca diwaan ba ñuy wax Touba mbir ki laan doomi alaaji Babacar Jaja alaaji Mbay jamu sëñ Fallu jur ko baayam sëñ Fallu tegoon ko ci wetam ne ko toogal sama wet seexal ko daan tëddandoog moom daan jugandoog moom mbay ja Xadi mu alaaji Fallu jur ko Xadi Géey mi ko jur nag moo dëkk Touba Mbeel looloo waral mu dëkk Touba mbir ki te ña fa ne merewul ko nee na enveloppe bii da sargal baayam ñuy ñaanal baayam tey ca Touba mbir ki mu ne ma nu may def te fàlloo ñëpp ay dem ma ne ko man nga am su ma teewee mën na ni teew nga moo tax mu jox la enveloppe bii di ñaan yàlla jàmm njëkk ci jàmm mujj ci ma fekkaat fi délégation premier ministre ngay sargal Cheikh Fall Fallou Gallas Lo ba tey du gàtti bu xaadim ja ñoo bokk ndey ñoo bokku baay muy magam di xaritam di léppam waaye may nuyu nag soxna Khady Fall su ma waxee ba daaneel te nuyuwuma la damay lekk riba xare bu sa maam mës a xare rek balaa ñoo rey sa maam sama maam la ñu njëkk a rey xare bu sa maam mës balaa sa maam a daanu sama maam ay njëkk a daanu 33 damel ci kajoor maag yow ko séddoo damel biram mbànga ak damel ma xurëja kuleeg biram mbànga ma xurëja kuli ngoone ko du seen jigéen damel maa sàmba tàg koy seen baax ma di teg soxna Xadi Faal mu baax mi Seydou nee na Xadi Faal waaw boo wayee ku baax da ngay séddu maa ngi nuyu soxna Mbenn Buso mbokku ndeyam Galas Koddu Faal gis nga ñun lii ñuy wax lu baax la moog li sëriñ siy wax ak jàng yi ñoo yem ndax lii ñuy wax ci la ñuy takki sëy ci la ñuy mayee doom te duñ ci tas kër kon lii lu baax la yàlla sa jàmm yàgg sa ñaari maam yi sëñ Fallou dëkkoon na leen am ca soxna maam say Fallou mi ma may kër ca nit ñi waaye sëriñ Bas sëriñ Mohamed sàmb soldaaru sëriñ Touba Lamine jërëjëf fàttewuma ko de gis nga lii ma yor ñoom ñëpp daa tudd ci kanamu sëñ Bass bi ma ñëwee journée culturelle Serigne Baara soldaatu borom Touba daf ma ne Alaaji Seydou ma ne ko Mbakke mu ne ma un million ngi nii defal ma ko ci bis sëñ Fallu bi ma doo ko ziyaar ak sëñ Bass Xaadi aw ba un million moom ma ko joxee ci journée sëriñ Baara jërëjëf Mbakke kon la ma waxoon def na ko yi lépp yow la rek may siyaar bu baax ak di sant Cheikh Malick Sène mi suñ Cheikh Oumy Mbacké Fallilu seexal sëriñ Fallou Seck la yebal ci man mu jënd aw yëkk jox ko ci bis bii kon Mbacké maa ngi la koy seeral di ko sant di ko gërëm France maag yow Mamoun bañ ko fekkee France dama ko woo téléphone mu ne yéen du ngeen ñëw maa leen di fekk si fa ngeen nekk ñëw yëkkati xaalis bu bari jox ñu àndaat ak ñun demaat ci soxna Baali jox ko àddiya ngir jëmmi sëñ Cheikh Oumy Mbacké mu sëñ Fallou waaw góor la ma seeral na la sëñ Bas le PDG Al Amin muy le PDG Lamine Camara mu sëñ Abdoul Aziz si Al Amin jox na ma teraanga ju baree bari waaye dafa génn moo tax maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ma seeral ne la sama yaay jii toog soxna Khadija Mbacke mi ñu dënk alaaji Baara Mbacke Fallilu madame Mbacke mu ànd ak doomi sëriñ Cheikh Ibra Mbacke mu sëñ Fallu mii maa ngi koy sant di ko gërëm soxna Mambar mu sëñ Cheikh Ibra mu sëñ Fallu soxna Khadija daf ma ne Seydou maay sa yaay man la woon ak sa yaay danaa xotti ay mbubb jënd ay kaala ak ay musóor ñu ànd ak man ma ñëw ci sa bis bii ndax man sama doom nga defuma ci dara lépp moo ko def maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm sëñ Seydina bu sa balig ma sàmba ak Cheikh kàddu gaa ngi nii asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu ngi jiital ci suñu nuyoo Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaanal ko suñu borom tabaaraka wa taala yàggal ko fi loolu wéral ko ba lépp li nga xam ne yéene na ko liggéeyal si Ahmadul Xadim suñu borom kàttanal ko ba mën koo àggale te naat bu mu sumbati rek ñoo ànd ak moom noonu lañuy siyaare tamit kilifa ak jataay bi sëriñ Cheikh Oumy moom Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar buñ jëlee nuyoo bi teg ci sa loxo da nga mën a àggalee yépp dana mën a mat waaye nag cité ay tur la du mën a ñàkk ndax nit bu defee lu baax fokk ñu sant ko gërëm ko sëriñ Basiiru Xaarim Awa Ba ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm wax dëgg yàlla damay wax ni yoonu islaam yëpp mën nañu wax dañ lay sago te lépp nag mooy liggéey sëriñ tubaa ndax ci daare alxuraan yi wala ci jàkk yi wala ci lépp lu baax yaa ngi ci yëngutu te loolu lépp nag jubluwoo ci lenn lu dul Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi ngi liggéeyal te ku liggéeyal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yaa ngi liggéeyal sëriñ tubaa te Serigne Touba ak say Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak Cheikh Mouhamadou Fadal benn lañu kon ñu ngi lay siyaar bu baax di nuyu suñu mbokk yi tamit toog Serigne Jili Pof di ñu ngi lay siyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay mu kàddu yi moom du gudd ndax waxtu wi dafa xat te toogaay bi yàgg na Serigne Modou Mbacke moom Serigne Abdoul Wudoot yow ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax. li nga doon ñun xam nañ ko yow xam nga ko bu baax a baax bu sëriñ Basiiru ñëwee fii jataay bi kon kàddu yi ñu doon bëgg yëkkati daan du ko jarati ndax bi sëriñ Basiiru ñëwee léegi seex Cheikh Mamadou Fadal joxoon na ma kàdd bi fii léegi ma yëkkati ci kanamam waaye xañ na Seydou dafa baax rek moo tax ma di ma joxaat kàddu gi ma di leen seereel nag yéen ñi nga xam ne yéen fi toog kàddu gii ma yëkkati maa ngi ko yëkkati ci turu Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko yëkkati ci mbooleem bi boo xam ne yaa ngi nekk biir géejuwaay di leen seedeel yéen sëriñ ci fi nekk ndax kat nit bu nekkee bu bokkee nekk ci lu baax bu kilifa yi teewee war nga leen koo seedeel ñëpp xam ko donte xam ngeen ak baax gi ci moom bépp liggéey boo xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëriñ Tuubaa fii ma di ko xalaat moom mi mooy jékki bokk na njëkk a xalaat ne ma sëñ teeñoo def nangam lépp lu ma jógit moom kenn ko ci ëpple ci gën caa sonn ci xalaat ak ci dox ak ci wax lépp yëngatoom lépp it liggéey sëriñ tubaa képp la te ñun nag amuñu lu dul Serigne Touba leneen lu mën a amit koy téye waaye ñun amuñu lu dul Serigne Touba Serigne Touba rek lañ am ku ñu fekk Serigne Touba danga ñu fekk ku ñu demee da ñu ci bàyyi ndax lu ñu am it Serigne Touba képp la kon nag moom yitteem yëpp bu ko jëlee yëmale ko Serigne Serigne Touba mënuñu ko ñàkk sant mënuñu ko ñàkk gërëm bu ñu Seex Seex Saalihu Mbàkke indi woon fii jaar ci Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ba ci Cheikh Sidil Muxtaar ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mii ñu nekk fii ci seen digal bu ñu amoon woon ñu mel ni ñu ñuy jàppale dana metti ndax am na loo xam te ne kilifa mënu ko waaye am na ñoo xam te ne kat ñoom li ñuy xam ak li ñu mën doo ko man alaaji Samba Diaw mais bu fi toogee yëkkati kàddu kàddu gi ma yëkkati mën na maa waxaal benn benn kàddu képp la ndax bu yëkkati la alaaji Mbàkke Fay mel na ne duggaal nit ñëpp ci biir kon kàddu yi moom gudd gàtt seex suñu seex ummi ñi ngi lay siyaar bu baax ndax bis bi ñuy tàntal sëriñ Fàllu asaar ndax mboolem ku yàgg géejuwaay dégg nga ne bi ñuy door indi bi Senghor di indi indi ñi fii géejuwaay ñu bari dañ ci àndu woon ndax soriwaay bi waaye bañ demee sëñ Fall wax ko ko ne ko dañ leen yóbbu foo xam ne daal dafa sori ah bañ ko laajee mu ne leen fan la ñu ne ko géej waaye mu ne way leen fa rek lépp fekk leen fi kon bu ñu demee ba waxtu wi Seydou si mii di tàntal sëriñ Fallou di ko delloo njukkal kon loola sëriñ Fallou ñaanoon du asaar beneen ba ci toppit seex Mouhamadul Basir mi mu ñu indil fii te kon xam ne seex Mouhamadul Basir ay ay ay ay dem ci ay jataay yomb ko waaye nag fi ko Seydou toll la loolu rek a tax maanaam mu ñëw fi waaye kon loolu lépp nag ay xéwal képp la géej day barab boo xam ne xéwal képp fi nekk ndax li fi nekk mën na maa wax ne ci biir ndakaaru bëriwul fu mu nekk mën naa wax ne Serigne Touba njabootu Serigne Touba gépp ci biir ak njabootu Cheikh gépp jëf léegi damay jox kàddu gi ah kooku sama sëriñ la euh, damay seere rek sëñ Cheikh ne maa ngi sant bu baax ku ñuy wax Thiam Teranga jëf na ci bis bi Pam Ndiaye jëf na ci bis bi ak ki nga xam ne mooy Ibou Fall Bogo transit sëñ Seex Ibou Fall sëñ Baara mi xam na li may wax taalibi sëñ Maam Moroom sëñ Fàllu la ñaari nag la fi indi si nga àdduna lu doy waar la oto bi ma njëkk am sama àdduna Ibou Fall laa ñëw këram ñu añ dimaas ba noppi ay tàkkusaan 6 heures mu yëkkati caabi rafkat essence bu giri ne ma addi sëñ Fallou àdduna di dox ba ibu xaw a jeng ñu naan day daanu ma ne ko barkeb sëñ Fallou doo daanu su ma woyaanee ba am téeméeri junni wala un million daw jox ko Ibou Fall ne ko dépense xanaa caméra lay wax de lu doy waar laa leen di wax mu ne ma Seydou Gore nga de ma ne ko barke sëriñ fallu doo daanu yow Ibou teraanga ji nga def ci senegal gii nga am tuuti jafe-jafe ñun ñi di la daw man duma la daw lu ne naa ko def bu ma ko amee ma yëkkati par téeméeri junni un million di ko jox Ibou ba Ibou taxawaat te yor ay millions yu dul jeex mu woo ma ba ma ñëw mu ne ma Seydou ma ne Mbàkke mu ne damaa jaayoon kër ya de ñu naan daanu naa ma ne mu ne kër gii laa jëndaat xoolal li ma sëñ Fallou fayee sa sëriñ bi sama sëriñ mu ne ma gardien bi laa bëgg mu xam la ngir boo ñëwee bu fi am sens interdit kenn du la téye gardien bi man képp ci ay communicateur ak i xaritam la wax ne Seydou mii dama bëgg bu ñëwee nga xam ne sama digg ak moom bis bi daf ma ne Seydou bu ma sañoon lépp bis bi maa koy def ñaari nag la fi yebal ak xaalis bu bare bari maa ngi koy sant sëñ bi di la seereel agi Mor Thiam Géwél Mor Thiam Géwél sëñ Cheikh sëñ Fallou Galass mii lay xaritam ñaanal di ko teral ma ñëw bureau sëñ Fallou daje fa moom mu ne ma Seydou da ngay sant sëñ Fallou tuddee ko sëñ Fallou Galass ma ne ko waaw mu ne dinaa jënd nag dinaa la jox grand mbubb dinaa la jox ay marakis damaa bëgg a jël ay traiteur ñu togg ca Fass Mbao yow bis bi bul toggi dara ma yénoo ko fas mbaaw indi ko terale ko say gan ma ne ko Mor kon jéggal ma togg yi te indi mbubb mi rek ak i nag yi mu indi fi nag ak mbubb ak ay dàll Mor Thiam géwél nee naa ko yow yaay géwélu VIP yi ndax taalibi Ibrahima Fall Mor géwél nee naa ko yaay géwélu VIP yi na leer ndax taalibi sëñ Fallu nga kon maa ngi koy sant bu baax a léegi nag sëñ Mamour sëñ Cheikh kii laa bëgg sant kii may bëgg a jox kàddu gi maa ngi ñëw sëriñ Basiiru Xaadim Awa Ba sëñ Cheikh ku santul nit doo sant yàlla man ku ne tax na jëmm jii di sëriñ Basiiru Xaadim Awa Ba tax na àdduna yépp xam ma ñetti milliardaires yi gën a jafee gis man saa su ma leen bëggee gis-gis leen grâce sëriñ Serigne Bassirou Khadim Awa Ba Ablaye Jëseniko Moustapha Ndiaye miy jaay ceeb Racine Sy borom kin fat place ak alhaaji Tayyur Sarr su ma leen bëggee gis rek damay ñëw saalam mu ne ma lu xewati ma ne ko yaay gaynde baara mënumaa ñàkk a gis tey benn milliardaire mu ne ma daal jaaxal ka ma toogal ma toog ba une heure du matin deux heures mu fëkk oto bi yóbbu ma kon Mbàkke jërëjëf adduna yëpp xam nañ ma grâce à yow nga baax lool nga yiw lool nga bëgg lu baax sëñ Bas maa ngi seereel sëñ Cheikh Oumy mii nit ku ma taxawu nga nit ku ma jàpp nga nit ku ma jàppale nga bis bii sonn ma ci dara damay nelaw ba waxtu ma neex damay toog rek sëñ Bas ne woowal naa la diw demal ci moom mu dox la ma dem woowal naa la diw jox na ma nangam maa ngi la koy jox barke sëriñ Falilu ay million la may taxawu ngir ma am ko Mbàkke jërëjëf dëgg la dëgg la jërëjëf Maamun ma seere rek ne sant naa ko bu baax gërëm naa ko ay waay jële Diouf borom làmbaay sëñ Habib Diouf sama xarit ñëw na ah taal taal Seydi taal Mouhamadou Nazir taal Muniru taal Seydi taal yeto ar gaañ ar ar Ceerno Muniru ar Seydi taal la ilaha illallah sama sang baa ngi nii Ceerno Muniru taal indi ko fii ni ñëw toog surtout Ceerno Fuuti Umar Fuutiwu taal Thierno Mounir Tall bisimilah Seydi Tall ah moom laay jox ñëwal bisimilah Tall Tall Tall ndeysaan Seydi Tall yegg si bisimilah may leen ko mu ñëw sama xarit la lool sëñ Bas Thierno Mounir Tall waaye sëñ Bas dafa am koo xam ne dama koy sant rek jox sëriñ Sidi mii ma bëgg sëñ Cheikh Oumy yaay sëñ Fallou ci jotaay bi nga sotal ma ko na mucc na am jàmm na bokkaat ci milliardaire sëñ Tuubaa yi na ci gën a bokk te xam naa ni bokk na ci sëñ Bas kooku mooy kan gaynde borom daaru Mouhamadou Nazir Samb barki Serigne Touba Mbakke gaynde borom daaru Mouhamadou Nazir Samb sëñ Bas maa ngi ñaan sëñ Cheikh Oumy doomi sëñ Fallu ji ak sëriñ Modou Mbacke Abdoul Wudoot ngeen sot ma ci moom dama bëgg na mucc na gudd fan na bokk ci milliardaire sëñ Touba yi xam nga lu tax daarul muxti ni mu toll ñu yëkkati jumaay borom daaru ji ne na yow lañ ko dénk yeesalaat ko mu yëkkati ay millions def ko ci biir ni xaaruma ci kenn bis bii bi ma ko njëkkee tëgg daf ma woo bureau sëñ ba seere la ci ma ñëw ba bureau mu ne ma kan kan ñoo fi nekk ma ne ko maag yow mu ne ma déedéet ma ne ko directeur sac bii nga tool yor nii daal sa wet fi ne man gëlëm naa xamatuma lu may wax mu ne ma maag yow ñoo fi nekk ak yàlla mu jël enveloppe kaki di ko rokkos di ko rokkos ay millions ba mu fees mu ne ma soo ko waxee maag yow ci àdduna dogoo nañu bëgguma sama rakk du sama mag du kenn ku ma bokkal jëmmi borom daaroo tax ma koy def Mouhamadou Nazir Samb sëñ bi ñaanalal leen ma ko sëñ Sidi su ma la bëggee jox kàddu gi ma jëm ci daaru faaw ma seere gaynde daaru muy Mouhamadou Nazir Samb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 est là gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. Ah,